émission petit déj bu ñu amal ci Walf Fadjri benn fan ci weeru février mi ngi wéy di animé débat yi gannaaw ba animatrice rubrique people bi xam leen ni soxna bu Youssou Ndour daa bett boroom këram gi ci ab auberge bu nekk cité kër góor gi ba jot ko faa sax dóor groupe Walf Fadjri daa dinay jéggalu Youssou Ndour animatrice bi nag ci publication journaliste bi di Adama Gaye la sukkandiku ne rek nit ku siiw kookee ñuy wax ne moom moo dem auberge ak benn xale bu jigéen soxna bett ko fa dóor ko fa dóor yu métti gi eh, du kenn ku dul Youssou Ndour doon nag eh, xibaar bi nga xamante ne ni ba mu ko waxee eh, choqué na ñu bëri lool dooree ko ci ay responsable Walfadjri ba tax rek ñu reproché animatrice bi lu mu sukkandiku si rek ab publication ci réseaux sociaux yi képp ngir yëkkati tuuma bu garaaw bile teg ko ci ndodd ab personnalité bu mel ni Youssou Ndour rax si dolli Adama Gaye mu fësal li ni mel tàmm na di tuumal ay nit ndax rek ci weeru mai atub 2018 Sidi Lamine la ni dem benn guddi palais ngir gis Macky Sall si di meroon ci loolu ba jëloon sax décision euh, porté ko plainte laata bonne volonté yi di arrangé lépp mu wéer lépp nag ci professionnalisme Cheikh Niass euh, daay rek jéggalu famille Ndour gi laata muy décider suspendre provisoirement émission boobee di rek petit déj Salma Ibrahima Fall nag di taskatu xabaar bu fësal tuuma boobee ci Youssou Ndour daal dinay xamle ni ci seen émission wu benn fan ci weeru février bi en tant journaliste buy présenté ay actualité people euh, traité na benn information ci wàllum xuloo bu si diggante musiciens yi waaye itam euh, PDG groupe Futur Média di Youssou Ndour ak soxnaam euh, dal di fësalit source bi di journaliste bi di Adama Gueye te rek na mu traité information bi manqué wula benn respect ci règle journalistique yi waaye nag ak mbettel nee na la PDG wu Walfadjri Cheikh Niass demandé ci intermédiaire seen réalisateur ngir mu jéggalu publiquement Youssou Ndour te ci xibaar yu mu jot eh, sax am moom a Salma nee na Youssou Ndour moo mettre pression Cheikh Niass ngir mu jéggalu ko Salma nee na nag ba mu bañee jéggalu Cheikh ñas da dagg émission bi bindulu benn article ngir jéggalu Youssou nduur si turub équipe Petit Déj bi yëpp te lu si gën a doy waar moo di eh, ci même not boobe Cheikh ñas da see bindulu ne équipe Petit Déj yëpp eh, jéggalu nañu Youssou Ndour te loolee amul te it amul lenn lu muy reproché boppam moom Salma ci bile mbir note bi ñu bind nag di si jéggalu euh, ku ko bind di maam biram wàcceel képp la engagé ak ka nga xamante ne ni moo ko ko binduloo di Cheikh Niass ndax moom fu mu tee rek la tee du te du mës a jéggalu ndax deful lenn lu jaaduwul ci traitement boobu lee xibaar rax si dolli euh, wax nag avocat ngir topp euh, képp ku melewu ci bile affaire mu xamle ko moom Salma Niass gannaaw nag ba mu bañee jéggalu yu Ndour Cheikh Niass it suspendre émission boobee di petit déj journaliste activiste bi di Adama Gaye daal dinay réagir moom it ci mbir mi moom nag nee na Salma Ibrahima ah, nu mu doxalee noonu la ndax wax na ay dëggam kii di Cheikh Niass ak Youssou Ndour ah, yëpp rek ba noppi fësal ne kontaanul si lu ñu jéggalu nduur Ndour sans accord a ah, si noonu Adama Gaye ne nag dañoo war a samp ab laaj ne ana lan moo tax Youssou Ndour ñëwul si moom ndeyu mbilli gi ngir réglé affaire bi te tamit ba xam ndax mësu ko woo ay jamono ngir wut wëllu ci kenn si ay xa ngir mu wàññi di dal allié wam bi di Macky Sall.